waaw nataaju liggéey daal li ci gën a bëri lool lool lool lool ci la bokk mm-hmm. wa man warisatuhu sirruhu mm-hmm. wa man warisat sirruhu mm-hmm. ñu xam ne doon wàllu sirru dëgg-dëgg raayam jaamu li ci la bokk léegi Ablaye Cissé bu jaamoon ci la bokk ñooñu li mu yoroon ci wàllu mbooloo ak jàng jàngale liñ ci def ci ci ci ci ci tariqa bi kenn defu ko mhm. xanaa ku leen cee mooy alaaji moon jamaka mhm. bu taw muski mhm. ndax eh, sa bàyyi ali alaaji ali dara mos na fa am yu doon toppatoo ci moom ba mu dikkee mënu ko yow xanaa xamal ne seen maam sëñ Faat man mooy suma sëriñ mu ne ko ah mu ne ko waaw man moo defal lépp moo ma may eh, moo ma may yurda moo ma lijaasal amaan naa lii yeneen lijaasa nag gannaaw bu mu fi bàyyi ko ca mhm. dem na jeg saaw ci rajo maay si mhm. mu defal ko lijaasa mhm. mu ne ñu bëri foog ne foofu laa aji waaye boo fekk na man li ma jëli a naa ko rajo li di ko ko bàyyi mu ne ko waaw wax de ndax Fatiha te mi bàyyam de moom laal daa wax ko sëñ par lu mooy jinniyee ko topp rok sax ko ci toolee seen yëngatu ba la dégg yow ci nelaw yi ñu mu ko sa sëriñ mu aj mu jóg ànd ak dem ñoom ñooy daal kenn kenn ku nekk liggéey ngi ci tarixa bi loo xam ne mhm. beneen taali bi liggéey ko ci tarixa bi mhm. ci ci ci ci ci li ñu xam mhm. na ko noonu Ali benn jaane macha allah mooy kasaalika liggéey ni ci benn jumaa mm, liggéey bu mu ci ay jàng ak jàngale gannaaw bu sori ko ajee nag eh, ay doom wala njabootam ñëpp ñu ngi xaaju ci alaji Ablaye Niass si Kaolack loolu ñoom moo leen yóbbu Guaiçanti sañ farla woon moo tax wiraasatu ci wàllu sirrum ñoom ñi ko doon ci wàllu googu daal ñoom ñoo ñaa ñoo ñooy kenn kenn pule loo leen ci wa hal kaana lahu ixwatun fii Korndrame waaw waaw moom amoon ay ay ay ay mbokk ndax magam Makumba Daado bu fekkee du taawit ci seet jaara ci doomi mag yi la bokkoon maam Xaalid ci doomi la bokkoon ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾಮ್ ಸಾಕೆ ಏನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ ಮಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಮ್ ಮಕ್ಕು ಬದಾದ ಮಾಮ್ maam kombe nu mu tudd waaye waaye dama fàtte mooy bàyyu maam xaali moom maam saay kon maam doom yi ba leer na ko lool wax ne man na juróom ñaar kenn ku ne nag yàlla fa ko yàlla fa leen defaloon kenn ku ne bokkal sa morom may ku mel maamu ko ba daara ñu ni moo doonoon rab yi mhm. ni daan gisee nii na daan gisee jinne yi mhm. moo jur Baye Mor Aminta mais ak Baye Baabu si Poro mhm. kenn xam ne mooy maam Xaalit moo jur maam seet soxna bay seet soxna ak aada maram ak seet maram ñooñu ñëpp moo leen jur kon day wax moom mbind rek lu moo ko doon na ci seet yaaram moo dàqoon a bind wàllu xam-xam. ñu ne Moussa Sotia ak Sëriñ Por ñoo ko ci doonoon. noonu lañ si doon njaboot yi bañ teg kenn ku ne am lu man am ci ko xam ne fetal rek moo doon liggéeyam. dama fàtte turam waaye moom dàqoon a fetal ci ci ci ci njaboot yooyu. noonu daal leen yàlla séddale woon. bon moom ñu bokk yooyu la sëñ Por amoon ci wàllu baay. waaye day wax ne daal firru bu Cheikh amoon. ci wàllu wilaya. moom ak mataal xoddi ñoom la ko yàlla sedd mm-hmm. bu sëñ borom na bu mataal xoddi ne la wéy mm-hmm. mooy mu dëkk bu ñu xamee ne ñoom ñaar mënuñ bokk nekk mm-hmm. ci por loolu moo ko génnoon mu dem ci morant sëri ne fa ba jeewat jeexat seen ji seen fi tubaab bi jëlee fi ceddo yi buuri ceddo yi nga xam ñoo nekk ci siin mm-hmm. loolu moo taxaloon jihaad ji ca ca ca mm-hmm. ca ca dëkk ba mm-hmm. yàlla dogal na boo demee ci jihaad ji far mu des ca ma tax faj waaye ñi bindoon warum sëriñ bu newoon ci tund yi bind na leetar ne ngi ñëw le ko ma tax faj nag yemb mu yeble ñu moo des waa projet ne ko yow bul dem yónneel ku dem ci jihaad ji waaye yow nga nga nga toog mu ñu déedéet moom mooy def yàlla bu ndee fa mu sombo boo demee somb tey bàmbal ak moom foofu fuñ mm-hmm. suul set eh, ah, mm-hmm. ma ma ma ba joxu mun mm-hmm. ñaara tëdd waaye kan moo fi te penku kan moo fi te xasu ko ndax ñu ngi fañ profité ci ba te ñoo ko doon suul dañ gaa yi xàmme ko moo tax bañ dañ maasale bàmmeel ya nga gannaaw bu jihaat bi jeexee ba toog bi gañe leen ñi ñi ñi ñu jébbulu jébbulu lañ soog ak wane xaat place ba moom mooy somb moom mooy jihaati somb ji fa mm-hmm. tabaarakallaahu mm-hmm. liggéeyam bi màgg na lool mm-hmm. góor gi bu mu dikkee wax dëgg yàlla alaaji Maal dekkali liggéey boobu moo ko gën a yëg ndax bi bàyyam de nelawta ko fekk mu ndaay waaye ba mu continuer di jàngi alxuraan joxoon ko benn góor ci face anglais fa la nijaayam nekk maam moo ko moo ko sañ ñu uh, ko moo sañ ci Alaaji moo sañ ci Taïba uh, sañ ci face ci dëkkam ba daan jàng ba mën a alxuraan laxas dem fu ñu wax jaagaan ne fa di laawaan laawaan fa lu yàgg ba lu njaaman sañ ci njaaman mu dem daaral li ñuy njëkk ci daara jël bokk fa nekk ba bi ba lu euh, nelaw keroog ba mu xajee ci mille cent vingt cinq moom keroog la bagaasam ñib ba mu diggee dem jaari geraan ndax dafa jaat Banjul dafa jaat euh, Kaffrine mhm. bala Ndukumaan mhm. ku ko bëggoon la ku bëggoon sëñ Por la mhm. mooy buur bi nekkoon Kaffrine ci jamono mu néew ko ba tàggu ne ko maa ngi ñibbi mu ne ko foo bëgg a dem mu ne ko maa ngi ñibbi Por mu ne ko déedéet boo demee bokk yi dañ lay not ngay seet fa ba am doole nga maanaam boo taxawee nga soog a dikk Por noonu la def yëkkati doomam bu ñoo Ismaïl jox ko mm-hmm. moom la bàyyi njëkk am ci taalibi mm-hmm. wala ko joxoon ci Kaffrine moo mm-hmm. ànd mu ñëw geeraan bind magi taalibe yi fi noonu yëpp ne leen maa ngi fi ñuy kontaan lool sampal ko kër mu nekk fa juróom-ñeenti at la ko soo ko bàyyi ko ñëw ñib si por ba mu diggee dekkal kër bàyyam continué daara ji jàngale diiran juróomi at dem ci penku por ndaame Borfa fi ñu tuddee ko lu ñuy euh, mm-hmm. mooy fi ñuy wax bàññi bant léegi mm-hmm. nit ñi nag ci euh, turandoo sepp soppim turno di ko tëkk rek Banjul mm-hmm. ci lañ tuddee turu Banjul Banjul batis ñii ne fii Banjul bant ngër bëri matt gi ñu defoon bëri matt loolu fa ñu daan taxanee euh, colonialiste fa waa goox bi ñuy taxal matt di yóbbu màkk yëpp ñu ko xambee saxaar boo saxaar lakk gasoil xama ko matt lañ daan xam mhm. matt moo fi ñu ko daan taxawal bàññil lañ ko daan taxawal dañu ne bàññil bàññil bant mhm. moo tu andi tuwaay waaye tudd tudd bàññil faas la ko bàyyi tuddee woon mhm. nekk foofu fukki at ak benn wala fukki at ak ñett 1947 mu ñu nekk tey muy Arafat ci la sañ ci dëkk bi da Arafat eh, jaar jaar yi la fi eh, góor gi def nekk fi ba 1971 ci la wuyu ji boromam yàlla na yërëm ko te yokk barke te naam moo ci fi njaboot gi kenn ca bopp alaaj Maalik ba na ko fi yàlla jëlee barki démb ba tabaarakallah yàlla na yàlla yëgal ko ci leer baayam ñu bàyyi suñ xalifa bii te suñu amatu daraami kii daal mooy jaar jaar yi nga xam ne bii ci gàttal ñooy jaar jaar yi sëriñ Por ci jàpp jàpp ci bàyyam ba ni mu mm-hmm. ñëw ci moom jógee ci moom ñëw ci sëñ Paul gannaaw mu mm-hmm. fi bàyyi ko sama bàyyi def ko fi liggéey noonu mm-hmm. dégg ngeen ko comme ni mu ko indee ndax euh, wax nañu kan mooy Serigne Por man huwa sëriñ Por ak euh, waman walidahu wax nañu ko wax nañu it euh, Saïd Diarra ay na kaana yaayusu maanaam fan la Saïd Diarra doon dundee wax nañu it xayaatu sëriñ por ci njàngam ak euh, gannaaw bu mu jàngee lan la doon liggéey wax nañu it xayaatu sëriñ por ci wàllu euh, tasawuf ba tey ak euh, maathar yi ak ñi nga xam ne atbaa yi ko toppoon yépp noonu tam la ñu indilee nataajit yi nga xam ne ni sëriñ por def na ko ci wàllu tariixa bi ba tey wax na ni sëriñ por ñen ñoo ko dond ci wàllu wilaaya gi mu yoroon ba tey noonu la ñuy indilaatee ndax Serigne pour amoon na ay mbokkam ak ñan ñooy ay mbokkam yooyu yëpp bu ñu xoolee si biir waxtaan bi suñu bàyyi indi na ko kon su boobaa yaakaar na ni li nga xam ne ñu a leen ko sàkku incha allahu taala bu ngeen sukkandikoo ci euh, vocal da ngeen ci mën a génnee li ngeen soxla su boobaa seen mbokk Mouhamadul Amin moo leen ko taxaw woon fii ñu ngi leen di wax jazakumullahu xayran asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.